maa ngi tudd Ndeye Aïcha Ndiaye maa créé association bi la présidente donc as mu nekk association à but non nga xam ne nekk ci diaspora bi nekk fii ñoo ko créé ko xalaatee ci bi mais dañ ne loo xam ne dañ ko implanté fii Sénégal la ndax Sénégal boo xoolee AVC dafa bëri léegi foo dem dinañ leen ne nit ki am na AVC wala sama xarit am na AVC et cetera donc loolu moo tax tey jii ak une histoire aussi qui se cache derrière histoire bi mooy man victime d'anévrisme laa donc je me suis dit ni tey jii chance bi ma amoon ñu prendre ma en charge facilement chance boobu tey dina xeex ba may ko sama mbokk yi nga xam ni sama sama mbokku sénégalais yi comme ça ñu xeexandoo àndandoo xeexandoo pour tey jii ni yu bëri euh, mun na accessible que mu doon scanner gis nañ ni vraiment c'est pas accessible malheureusement comme ni ñu ko bëggee par exemple ay localités ñoo ngi wane ni tey jii ni pour nga def scanner rek mun nga toog euh, quatre jours après donc c'est des choses yoo xam ne ñoo ngi koy xeex te bëgg nañ tamit ñu am si beaucoup d'amélioration suñu journée bi journée boo xam ne dafa commencé woon de huit heures à midi moo doon dépistage des AVC bi boo xam ne dañoo offrir ko gratuitement association moo ko offrir population thiessoise bi mu nekkoon ñu jël sa taux de glycémie jël sa euh, taux de cholestérol jël sa tension gratuitement on a eu à dépister plus de 200 personnes ñoo xam ne ñëw nañ fi ak ñoo xam ni tamit euh, yóbbu redirigé nañ directement hôpital régional parce que am na koo xam ni sax dépisté woon nañ ko euh, taux de cholestérol élevé ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu ëpp donc dañoo jël oto sax mu mujj koo yóbbu hôpital donc euh, dépisté nañ plus de deux cent personnes aujourd'hui message bi may lancé population bi mooy ñu xoolaat suñu alimentation parce que ku ne AVC li ngay njëkk a xalaat mooy alimentation bi xoolaat li ñuy lekk ak nan lañ koy lekkee comme suivre tey di di conférence bi c'était très important neurologue yi ñëwaat nañ ci donc suivre alimentation bi di def sport wàññi toog bu yàgg bi et voilà loolu ay lancé population bi ñu bàyyi xel bu baax si loolu et message bi may lancé par contre suñu gouvernement moo ñu accompagner ñu accompagner ñu parce que ñun par exemple di nekk si association majorité bi ay jeunes lañ jeunes yoo xam ni ñoo ko taxawal te ñoo koy financé donc ñu ci xaar état parce que mission boo xam ne ñu ñoo ko jëlee suñu bopp mais suñu amooy accompagnement par exemple ministre de la santé wala ministre de la femme day doon lu gën donc parce que mission de service civique lañ nekk di def nii et ñoo ngi leen woo ñoon ñëpp tijji porte yi woo leen ci yoon yëpp pour euh, liggéey bi mën a jaar yoon. suñu jugee fii tey jii nii suñu yéenee dem hôpital régional la pour def suñu don parce que journée bi noonu lañ ko tënkee dépistage huit heures ba midi. Euh, après l'après-midi ñu def sensibilisation bi ngeen fekk tey bu nga xam ne ay neurologue ñoo ngi fi woon euh, def sensibilisation bi et après loolu ñu nga xam ne don bi ñuy def hôpital régional boo xam ne ñun jeune association bi ñoo ko def ñoo suñu doole boole suñu doole nii lii dañ koy jàppalee hôpital bi. Je suis le docteur neurologue à l'hôpital kii régional AVC mun nañ ne moom mooy première cause mortalité bu jigéen dans le monde moom mooy première cause de handicap mooy li nga xam ne mooy tax nit di laago si monde bi Sénégal fii ñottu nañ ne service de neurologie yëpp bu ñu dem AVC mooy première cause d'hospitalisation hospitalisation boo xam ne genn wàll bi avant un an dañuy décédé donc ce qui montre que AVC pathologie bu grave la ak bu dangereux. li may wax population yi mooy ñu fagaru. fagaru mooy ñu lekk lekk bu sell boo xam ne dëwlin bi du si bëri suukar bi du si bëri xorom bi du bëri ñii di doxantu di naan ndox bu bëri boole si di dem kër docteur di def seen i consultation ak di topp li nga xam ne moom la leen docteur di wax. ki def AVC surtout damay insister daanu bu leen ko jox lem bu leen ko jox xabat sawda bu leen ko jox dara tëddal leen ko ngeen woo kër docteur rapidement ñu jël ko ah charge parce que feebar boo xam ne. faj bi dafa war a gaaw la